association des opérateurs pour le développement économique de Touba adopte njëgati lu toll ci fukki million ak benn ci sunuy koppar jënd ci ay jumtukaay yu ñuy xeexee jàngoro jii di coronavirus ak lu toll ci fukki tonn ak juróom ci ceeb loole lépp ñu jébbal ko kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi ngir ñu xeexee ko jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus. moo tax tey ñu dajale woon suñu kees débale ko ci onze millions ñu woon dañuy ñëw jaar ko ci état bi ndax sous-préfet mënu gën a jege. mu orga yóbbu nu si préfet ñu boole noog moom tey ñu war koo jox don bi mu toll si cinq millions sec liquide bu war a dem si xaalis liquide bu war a weer si ak quinze tonnes trois cent sacs de euh, riz ak saabu ay médaar waa adopte yëkkati lim bu takku ci ndimbal googu jébbal ko waa daayira muxaddimatul xidma bi nga xam ne ñoo yor grande mosquée bu Touba jàppale leen ci xeexu jàngoro ji. saabu bi ak médaar bi ñu ngi xalaatoon mu dem xidma si jumaa ji ndax comme ay taalibi lan tey gis na ni foofu mbooloom dafay dem lépp daal ñu ngi ko jagleel xeex Covid 19 bi. di wuy président ci appel bi mu woote comme citoyen yi di ko xamal ne ñoo ngi ci ginnaaw lii ab tàmbali la bu ñu def waaye du fi am bu soobee yàlla. sous-préfet bu Ndaam di suux Diallo mi nga xam ne moom lañ teg ndimbal gi ci loxoom bég na lool ci jëf ji nga xam ne waa ADOPT amal nañ ko fii ci Touba ngir ànd ak ñoom xeex jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus. ay ndimbal si ay euh, xeetu produit yi nga xam ni moom la ñuy xeexe jàngoro bi di Covid 19 ñoom tamit dañoo ñëwoon gisoon ma ñu ne ñoom it dañoo fas yéene jël seeni alal dugal ko si biir xeex ñoom it Covid 19. kon tey ji mu ngi mel ni ko loolu ñu waxoon def nañ ko. gàcce ngaalaama euh, kontaan nañu trop si seen contribution bi te yaakaar naa ni ah, ñun fii Touba loolu la ñu yaakaar te lii ngeen def tamit moom la sëñ Touba. Euh, euh, santaane woon Cheikhul Khadim ne woon na Touba lépp lu fi am lépp li nga xamante ni bi moo ñu jaaxal bu ñu toogee dajale suñuy doole rek daañu ko mën. association des opérateurs pour le développement économique de Touba ñoom di xamle ne jàngoro ji di coronavirus ak mesures yi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko ci am nañ njeexantal ci seeni activité waaw liggéey bi taxaw na euh, si côté yëpp depuis deux semaines yi daanaka feeñ na suñu doxin. waaye nag ñun danoo nekk si eh, patrimoine jàmbur doonte réew mi nu yilif eh, lépp loo xam ne suñu àq si nit yaakaar naa bu defee luwaam ba pare seen naakaas defaram xëy na ñoo ngi si yoon wi président wax na ko message nation ñëpp dégg ah ñi yor wàllu woowu xëy na bu ñu demee ba xam nu baa ñu dégg nu danoon dox bu lii jàllee jóg si lu suñu watañ jël ko